wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi gannaaw ba nu sandee suñu boroom subhanahu wa taala julli ci ab yonentam Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di sant asayxul xadim del siwaat nañ mbokk yi ci jotaay bi nga xam ni baaxoo nañ ko ànd ak yéen muy yóbbalu suba ci seen télévision bi nga xamante ni mooy Mouride TV ba tey rek mbokk yi ñu ngi ci njàngalem yonent bi ñu ngi ci njàngalem sëriñ bi nafaanallahu bi barakaati sur ismihi mu wax ni wa izzukum badarakum min aw awjabahu alaykumu rabul anam nee na ki nga xamante ni mooy borom bindéef yi te mooy suñu borom subhanahu wa taala warlul na ci yéen ngeen wattu li nga xamante ni mooy seenu gis waaw seenub gis yàlla warlul na ngeen wattu ko ci xool jëm ci loo xamante ni nii lu xaram la wan sajiru xan nasarin li muslimi bi nasarin tuujihi dunal mujrimi bokk na ci yi nga xamante ne dafa xaram mooy dañuy jaaj ji ci xool jëme ci ki nga xamante ne muy ëpp jullit ci xoolin woo xamante ni daf koy lor waaw ngay jël di jëmale sab gis ci ab jullit di ko xool xoolin woo xamante ni daf koy lor yooyu bokk na ci yi nga xamante ne dañ dañ cee dañ cee jàjjee mooy ko waaye waris na ki nga xamante ne ab kàccoor la te mooy koo xamante ne ab saay-saay la moom bokku ci kon daal ndax fa innahu alaykum fima suri xijraanuhu nasiatan lertadi ndax bu fekkente ni koo xamante ni kàccoor la moom bokk na ci li nga xamante ni moom la ñu yoonal mooy tungu ngir lan laaye biiru ko ngir loolee nga xamante ni moo ca la nekk mu mën koo bàyyi mën koo war ginnaaw ñëwaat ci li nga xamante ni mooy ak njub wal taazaru suhbata kulla fasix id bil muridi xayra laiq nee na maa ngi leen di mooy tanikuloo ngeen di bépp kàccoor te mooy bépp saay-saay maa ngi leen di moytandikuloo ngeen di ànd ak moom ndax nee na loolu ko nekkul loo xamante ne lu yàlla ci ab murit waaw nee na yëllul ci ab murit mu ànd ak koo xamante ni ab kaccoor la te mooy ab saay-saay ab murit nag mbokk yi mooy koo xam ni dafa nam ma jëm ci boroomam subhanahu wa taala kooku mooy ab murit waaw kooku mooy murit soo defee marit nag mooy ki nga xam ne dañ koo dàkku dox digganteem ak yërmande suñu borom wala xiyaasu billahi taala kon murit mooy ki nga xamante ne dafa namm jublu ki nga xamante ni mooy boromam subhanahu tax la mu ne kooku nag yërlul ci moom muy ànd ak koo xamante ni ab saay-saay la ab kàccoor faasix nee na yërlul ci moom muy ànd ak moom ndax bariyaana koo xamante ni mbokk yi ku baax la woon bariyaana koo xamante ni ku tegoon ci aw yoon la waaye mujj na yàgg doon koo xamante ni saay la lan moo ko jural mooy ànd ak koo xamante ni saay-saay ànd ak ko saay moo tax mu mujj doon saay-saay waaye bariyaana koo xamante ni ab saay la woon mu mujj doon koo xamante ni ku baax la lan moo ko yóbbee mbaax nga mooy dafa ànd ak koo xamante ni ku baax la waaw ànd ga muy ànd ak ku baax rek loolu moo tax mu mujj doon koo xamante ni ku baax la loolu moo tax kon sëriñ bi wax ni maa ngi leen di moytandikuloo ngeen di ànd ak koo xamante ni kàccoor la waaw te mooy ab saay-saay ndax loolu kat nee na yëllul ci ki nga xamante ni mooy ab murid soo defee nag falta fasul bat nun wa lisaan farjun wa rijlaani wa xaynan yadan wa baax waxa usnaani man laha raxa xanil maadi kulliha yantafica mu ni maa ngi leen di dénk na ngeen sàmm na ngeen wattu li nga xamante ni mooy cër yi mun cër yooyu nag muy biir maa ngi leen di dénk na ngeen ko sàmm làmmeñ maa ngi leen di dénk na ngeen ko sàmm am pëy maa ngi leen di dénk na ngeen ko sàmm ñaari tànk maa ngi leen di dénk na ngeen ko sàmm ñaari loxo maa ngi leen di dénk na ngeen ko sàmm ñaari bët maa ngi leen di dénk na ngeen ko sàmm ñaari nopp maa ngi leen di dénk itam ngeen sàmm ko nee na te képp koo xamante ni sàmm na cër yi nga xamante ni moom laa lim mu juróom-ñaari cër yooyu ba jàllu ci la nga xamante ni moo yoon wa lañ ko digal rek la ko la ciy def jàllu ci li nga xamante ni mooy aw yoon nee na su boobaa kooku day dana nekk koo xamante ni ku jariñu lay doon ndax fal kullu minha jumlatan qad xaabalat baaban min an niiraani fii maa xat sabat wa man yakun حافظها يكفى الدخول يوم العماء في النار سلق عري الجليل مني نخت بن بنك تي جروم نيار يوغا خامتاني موم لا موم لا ليمال مو جروم نيار تي يوي دا فا ام بن بونت بو خامتاني موم لا جاكار لول تي فاغا خامتاني موي ساورا ام نا بونت بو خامتاني موم لا جاكار لول دا خامغي ني مبوكي ساورا جروم نياري كير لا واي دوما ادم ايتام اي تيرم جروم نيار لا te benn cër bu nekk cër doomu aadama dafa am benn bunt boo xamante ni moom la jàkkaar lool foofee nga xamante ni mooy sawara te bépp cër nag boo xamante mu ni koo xamante ni nag sàmm na ko maanaam wattu na ko su boobaa dana ko fegal li nga xamante ni mooy tab bi ca bis boobu nga xamante ni mooy yowmal xiyaam ci tab ca sawara woowu nga xamante ni mooy sawara suñu borom mi nga xamante ni mooy aji màgg ci wa man aba maula bi udwin abada fa baabuha baabu xasabihi xada nee na koo xamante nag mooy na suñu borom mi nga xamante ni mooy kilifa gi ci benn cër ba faw nee na buntam moom mooy buntu mbugalam bu ëllëg maanaam cër boobu nga xamante ni moom la moom la moom la mooy yàlla buntu boobu nga xamante ni moom la jàkkaarloo ci sawara buntu boobu moo doon buntu mbugalam ëllëg ndax fan ca lay daal di jaare ngir tàbbi foofee nga xamante ni mooy sawara ànd ak li nga xamante ni mooy jëmm ji lépp loolu moo tax kon mu lay loo nga fexe ba sàmm sa juróom-ñaari cër yooyu nga xamante ni mooy sa mooy juróom-ñaari cër doomu aadama su boobaa nga sàmm ko waaye itam wattu ko ba benn cër doo ci mooy sa borom subhanahu wa taala mbokk yi kon xam na foofu la taxaw taxawlu ci yóbbal bi jox leen di la incha allah taala ci beneen yóbbal seen mbokk Mahmoud dañ daaloon fi ci Touba li gën ci nun yàlla nañ suñu waram defal te dëppale ko lu gënal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.